aca ndeysaan arbitre ba sifflé na final poids lourd diggante Sety ñaa Gandia Mané wala ngane ne Gandia Moundé Sety Diagne ñaa Gandia Gandia sol na na yooto am na ngembo de Cheikh Bali nga bëriwul fii si baasul ndeysaan di siyaar sama garaay sampa ak samro ñoom ñoo fi andi ndeysaan eh Alpha Ba di si génn di waa BG ñoom teew ki ñoom Ozo. Gadia daan na ko de Gadia jël na ba si kaw seeti jaar ñaa ndeysaan